prison yi mais tey jii bu ñu doon génnee xam ne vraiment c'est urgent ñu nga tey prison Sénégal yi fees na fees loo xamante ne foog ñu tas ko prison yi ay néegu fas la woon ah prison yi depuis ay 1918 100 mètres bi ñu koy tabax boobu Sénégal c'était ay 7 millions d'habitants léegi ñu ngi ci 17 millions. Mhm. dañuy waxtaan quoi adduna bi dafa dox xaw ma 18 million dañuy waxtaan adduna dafa dox mais adduna bu doxee da dox booy dañuy taxaw ba fajar seen tànk yi di néew yi. prison bi am na ay dof. ñoom fa lañ dofee. fa lañu dofee am na ay dof yoo xamante ne dañ leen jàpp yóbbu leen fa tëj leen. gaa di ñu xool sa taw ñooñu dañ leen di boole ak nit ak ñi nga xamante ni ma laaj la xaaral ma euh, ñi nga xamante ni tey seen xel neexul dañ leen di boole ak ñi normal ñu dëkk. am na ay dof yoo xamante ne am na ay dof yoo xamante ne dañ leen di boole ay nit ñu normal dof yoo xamante ne du ñu sangu am na ay dof yoo xam dañuy génn ci kaso bi di lekk ay mbalit. Hmm. gars yi nañu dawal Sénégalais yërmande. ñi dul gis ñi fa nekk aussi dañ leen di booleeg ñi normal mais fee fee la tey gumba boo ko jàppee ak yàmbaa da koy yóbbu corrigé ko yoon loolu la wax lu baax ah ku ko def da am jàmm ku def lu bon dañ lay corrigé prison nag dafa bokk ci dëkk mais dafa am ñoo fay yare doomu aadama yi. Mhm. prison Sénégal yi c'est des centres de formation de banditisme da yàq nit. yaa ngi wax ci hygiène bi un peu. hygiène amul ah, fa c'est un droit. benn néeg 300 benn néeg 300 personnes. hygiène mënu fa am. rangu sangu ah. rangu rangu sangu rangu saw rangu toog da ngay nekk cinquante personnes benn toilette. rang bi bu taxawee. tey boo nekkee premier ki day nekk cinquante septième ki nekk quatre vingt dixième ki nekk cent vingt troisième. quatre cent personnes ci benn néeg. déggoo li ma la wax xanaa. te mënul li may wax nii dama ko dundu. dangay toog une semaine doo sangu. chef de chambre boppam mooy mujjee jóg di arranger gars yi naan dugal boo duggee da ngay laal fi balaa ngaa laal fi ñu xëccal nga génn. donc tooguma la sangu bi c'est obligatoire. Amadou Amadou ñëpp mënuñu sangu. Amadou. même ñu may Kajoor mu parce que Kajoor c'est comme si qu'il la perdu euh, euh, les mots il est même en train de de verser des larmes la c'est difficile c'est difficile moo difficile moo tax les prisons là il en gars yi désencombré ko jéem a xool beneen système Kajoor parce que système bi nii nii nii nii jàllul. Euh, waa d'accord léegi ñoo ngi ñëwaat ci yow Massa ñu ngi leen di Massaw bu baax a baax parce que yàgg nañ di dégg li nga xamante ni mooy am ci prison yi mais ku ko dund bu la koy nettali. soo téyewul sa bopp dëgg-dëgg doo doo doo àggale say wax Kajoor Kajoor lan la lan moo la lan moo <laughs> lan moo laal sa xol ci li nga xamante ni moom la ñu wax. peut-être j'ai pas ya ñaan naa yàlla bu mu bu mu mës tëdd kaso quoi mësuma tëdd kaso mais dans le cadre du travail bi may def. en tant que journaliste mais également Caritas bi ma nekk on fait le tour des prisons. Mhm. Mhm. li mu wax nii man maa ko gis gis naa dem nañu prison gis koo xam ne xel mi neexul. Mhm. da doon perturbé. Mhm. ñu ñu ñu monote ko puis ñun bi ñu koy fekk il avait les pieds et les mhm. ku xelam. Euh, neexul neexul lan lay ut si prison Sénégal dañu waxante dëgg. foofu du place dañu waxante dëgg. c'est-à-dire kii gis nga prison luñ la wax rek am na sax par dignité lu lu mu lu mu lu mu waxul. luñ la mun a décrire ci ci inhumanisme boog su ma ko mën a waxee noonu. Mhm. am na lu mu bàyyi par peut-être dignité walla leneen donc j'espère que on a un président ki est récemment sorti de prison j'espère que dina il en contact direct ak ñoom. Mhm. dina def l'effort gëm xanaa moom ragalatul tëj tëdd kaso parce que comme euh, dafa am ay assertion yu wax ne soo tabaxee kaso yooyu yaa fay njëkk a dugg comme moom il est il a déjà fait la prison xanaa waratul ragal pour tabax yeneen kaso ñu ñu ñu mën a désengorger les prisons mm-hmm. mais fexe aussi ba mm-hmm. euh, ñi ñuy tëj longue détention yi ñu arrêté ko vraiment pour que lii kii parce que li muy expliquer ni ñun bi bi bi am na benn jour euh, magistrat euh, ordre des magistrats ñoom ñoo doon dem def le tour des prisons mhm. ñun ñu da àndoon ak ñoom doon couvrir mais bi ñu duggee rëbës à cinquante mètres de la chambre la la la xet bi di dugg ba nga xam ne da nga naan ni comment est-ce que mais gis nga bi ñu bi ñuy avancé di dugg ci chambre gis nga boo duggee ci chambre yi ñun ñëpp laaloo tout la délégation tous les magistrats yi ñëwoon ak avec tout la presse. Mm-hmm. bon suñuy caméra ak lépp dañ ko bàyyi ci biti ok mm-hmm. Mm-hmm. mais amul ku ku ku ku mën a taxaw deux secondes si biir chambre bi amul ni ngay duggee. ak ni ngay génnaatee ak xet bi. ni ngay duggee ak ni ngay génnaatee benn looy doon nga gis gars yi nekk foofu ci biir. ay ñu ngi summeeku ñoom ñëpp de parce que tàng na. Oh. xat na yëf yi moi je me je me rappelle que chambre boobu ma dama jàppoon ce qui parce que on di avait dit deux cent soixante personnes ñoo nekkoon ci xamatuma ban la ci chambre ñoo nekkoon ci chambre boobu alors que waruloon sax dépasser cinquante personnes. Mm-hmm. donc nga dégg xet boo xam ne c'est à à à des dizaines de kilomètres. à des dizaines de mètres la la xet bi di dugg boo ñëwee bunt bi rek ngay mën a taxaw te buntu bi sax boo boo ci taxaw aussi nee ngay jubal sa kanam boo booy teg ak bi ngay delluwaat benn la doon parce que gaz day mel ni genre gaz gaz buy buy buy buy loolu donc xet bi bon xet bu bon xet bu imagine nag ñun on n'a pas été capable de rester une minute. Mhm. ci néeg boobu. waxatuma ñu fa nekk vingt quatre heures sur vingt quatre. ñii nañu nañu xoolaat. seen bopp nañu xoolaat bu baax yàlla si li ñuy def ay nit ñoo fa nekk te te te li may wax rek du du du ñëpp ñoo juum yóbbu leen même bu fekkee sax dafa rey nit ñu yóbbu ko nan ko may chance su reprendre conscience ne li mu def baaxul ci anam biñ koy tëjee aussi ñu xam ne ba léegi mu ngi garder ak ak yelleefam